dem ñun Amadou Ba mooy candidat na bàyyi candidat bi bu dee nag moom moo nekk candidat kon nag affaire bi sax dafa leerlu kenn xamul Amadou Ba mooy candidat wala moom mooy candidat léegi nag ñoom seen salade boobu nañ ko ñoo doyal ñoom ci seen ay mbir la ak Ba candidat ñoom pare nañ ci ñoom gis nga ñoom c'est fini c'est à côté coow li ñun ñii la waa léegi d'accord ñi nar a tey bokk bu ñuy nar a dem parrainage ba ñu tànn leen ñooñu ñooy coow li mais du Amadou Ba Amadou Ba c'est pas un débat waaw Amadou Ba c'est du c'est du c'est du Macky sans Macky. waaw Aminata c'est pas un débat ce monsieur. mais Amadou Ba ngeen am en face de vous. léegi lu war a ko en face parce que parrainage bi moo ñuy àtte ñun ñëpp ku la wax ne moom sax mat la waa ji dañ ko jiital rek. bokkul ak Khalifa Sall mi nga xam ne il est intitut personnalisé xoolal am fulaam am faydaam am autonomie. kii il n'est pas waa léegi bañ na ko sax bu ñu demee Kédougou fu ñu dem rek waa ji da koy gàddu comme trophée di ko présenté.

Macky Sall moo ko gàddu di wër ak moom région yi. naan région yi am sama trophée baa ngi nii man bii laa leen présenté moom na dem te bàyyi. waaw te yóbbaale trophée am te xam ne trophée am du débat. Aminata baax na c'est que. Aminata xanaa dafa seetaan ay émission tey sama démarche nii lay demee. daa mel ni comme ça xam Aminata xam naa. oui mais écoutez bàyyi ma bàyyi ma. poser question waxal bi ba wax. may jaxase amul ba ba du ma xam. sax ma trophée moo ko tiital. trophée Amadou Ba trophée non c'est que le fait que le fait que <laughs> kenn kenn mënul muñ loolu. xam nga tamit xam nga ñun tooguñu pour saluer. saluer wuñu quoi. parce moo gën a am liberté ko moom. moom bu moytuwul sax bu Abdallah moo koy jiitu. <laughs> waaw yéen problème Amadou Ba ca ca ca emprunt obligatoire ba. non non non obligatoire ngeen ko ngeen ko logal ba léegi. Birama ñun ay sénégalais la ñuy seetaan. Birama yow mii sax am nga ci problème. Amadou Ba na jël yow léegi léegi wax nga ko nee nga yow boo mënoon wax ak moom di nga ko wax ne ay continuité bu ko tudd. waa léegi wuy ma kon kon nga war a xam ne ne Amadou Ba il n'est pas libre monsieur. waa léegi Amadou Ba c'est le candidat de Macky Sall Macky Sall moom daf ñoo bëgg a yàkkale. waa léegi ñun ñoo ko ko li Barthélemy wax démb ñu fase la ba pare nga bëgg a joxe sa rakku jabar ne moom léegi moom laa leen bàyyi amul fenn ñun ñii ñëpp kenn du fa bàyyi sa rakku jabar sa sa rak ne sa jëkkër na ko jël ñaareel parce que nañ la amul fenn kon dafa am benn discours